mbokk yi ñuy déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu dellu siwaat nañ ci émission bi ñu leen baaxoo amalal mu di yóbbalu koor ngeen ci ànd ak seen mbokk Abu Bakrin ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala na nu gën a tawfiiqal gën ñoo kàttanal ba liñ ci yéene ci liggéeyal yàlla ci sunna su yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla nañu ko mottalil Euh, tey di juróom ñetteelu fan ci chehru ramadan al mubarak ñu ñaan yàlla suñu koor yàlla na ko suñu borom nangu ca na mu toll ndax wa ma dalika ala allahi bi aziz mu bañ ko nangoo niñ ko woore waaye nangoo ko ci grandeur am ci splendeur am moom suñu borom subhanahu wa taala euh, juróom ñetteelu fan bi nag ñu war a waxtaane la suprématie du prophète محمد صلى الله عليه وسلم بيسالي سرلي من السيادة العليا السيادة العليا موي جيتة جمو جيتة منذ يب العلوية والسفلية يتي كاوي أك يتي يتي سوف يب كوكو لاني ورا وقتاني صاحب الحوض المورود صاحب المقام المحمود صاحب الصفاعة الكبرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبي فاطمة الزهراء nga xam ne moo sauvé toute l'humanité non munqidul bashariya yal na yàlla fayal ñu ko ci màggaayam ak teddam ak ci ngëneelam yonent bi nag ku koy waxtaane munoo xam fooy commencé munoo xam fooy jeexale xanaa dangay nekk rek di wax di mel ni géwal rek di wax di wax di wax di wax ba heure bi jeex nga bàyyi waaye kenn moom kenn xamu ko ku dul yàlla mi ko sàkk xamu ko ci leeram li mu yaram ak léppam dañ ciy barkeelu rek ndax ñun sax mënuñu ko waxtaanee nag yàlla xam na ko liñ ci mën a xam daal mooy huwa ba bashariya maanaam moo din moo génnee nit ci lëndëm yóbbu ko ci leer mboolem kainaatu jamiul kainat al mutawajida fi l xadaraat al ulwiyati wa sufliya ñëpp yëg nañ présence physique et spirituelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur leur leurs actes kenn ku ci nekk moo xam picc mi naaw la moo xam ngelaw ngelaw li la moo xam gunóor bi dox la kenn ku ci nekk moo xam ginaar guy sab la ñëpp yëg nañ présence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam assistance bi nga xam ne assisté na la ko ci li nga nekk kon loolu dafay doy sëkk rek ñu ñu waxtaan ci mooy nit nit ki yëgee ni am na ku koy alimenter ci lumière fu mu toll am na ku koy dimbali fu mu toll noonu la ko mbooleem kainaat yi amee mooy mbooleem être yéeg nañ ni am na ku leen di alimenter am na ku leen di dimbali ci ci ci benn moment ak ci moment yëpp kooku mooy kan mooy ki nga xam ne moom la suñ boroom subhanahu wa taala tànn def ko l'homme le plus influent du monde nga bëgg ko ak nga bañ ko jox ko li nga xam ne mo ëpp influence ci monde bi muy alquranul karim kooku mooy asaxsiyatul mithaliyatul farida muy ki nga xamne moy exemple ci nit ñëpp mo xam ku wex ki la mo xam ku ñuul ki la mo xam ku xonk ki la mo xam ki lépp ci lolu ci la suñ borom subhanahu wa taala waxe ci haqam ne wa innaka la ala khuluqin azim raw ñëpp ci critère de base raw ñëpp ci yàlla raw ñëpp ci lu mën di doon ndax buur bi bi mu koy tàgg neewu ko wa innaka la ala xuluqin azimin rek euh, euh, yow kat da ngaa rafet jikko waaye du ñu teewlu du ñu approfondir dëgg-dëgg waaye bu ñu xoolee siyaagul aaya tëgginu aaya bi rek tagg woowu mu ko tagg malgré wa innaka la ala xuluqin azimin ñeenti baat la waaye ba nii nii nii nii amul keneen ku mën a tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci taggin wu raw bi ko suñu borom tagg ci ñeenti baat yooyu wa innaka la ala xuluqin azimin boo koy jàng da nga naan ñeenti baat la te amat na kee bind na ci ay téere téere téere waaye nit munta ta yonente sallallahu alayhi wa sallam ba ñeenti baat yooyu ndax alquran ak balaaxaam ak euh, forme yu ñu utilisé wa innaka naka yow buñ bu fekkoon dañuy wax ni euh, jikko ab néeg la nekkoo ci biir néeg bi yaa nga ca kaw néeg bi da tiim néeg bi kon danga nga da nga da nga entouré néeg bi wa innaka naka yow la ala yaa ngi ci kaw jikko joo xam ni azim ju màgg la kon loolu rek doy na sëkk madxan wa thanaan euh, ala nabi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nag ni kii ma tagg kii ma jël mentionné ko privilégié ko mu gën ñëpp bu leen wuti modèle ailleurs kii dana leen sëkk ngeen roy ko walakum fi rasulullah astaghfirullah walakum fi rasulillah uswatun xasana liman kaana yarju llah wal yawm al axir aaya bi suñ borom subhanahu wa taala daal di ni modèle de vie référence bu ngeen ko soxla jëlee leen ko ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam non pas ailleurs bu leen ko wute ji fenn dal di indexé ñenn ci ñi ko war a def mooy kan ak kan mooy ki nga xam ne yàlla ñor na ko gëm na yàlla gëm na bis ci gëm na ni bis dina ñëw mu taxaw ci kanamu suñ borom subhanahu wa taala ñooñu suñ borom ordonné leen ñu roy yonent bi alayhi salaatu wa salaam mais ban roy. ci royun woo xam ne ay jëfam day dëppoo ak say jëf donte mënoo mel ni moom waaye dañuy wax ni roy ku la raw du tax nga mel ni kooka waaye dina la dimbali ba nga raw sag maas ci ay jëf yoo xam ne dafay dëppook ay ndigalam te ay ndigalam mooy ndigali alxuraan ay tereem mooy tere alxuraan dañu laaj sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha mi nga xam ne bokkoon na mën nañu wax ni bokkoon na ci ñi gën a jige yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lépp nag ni ko jikko jikko yonent bi sallam lan la woon mu ni kaana xuluquhu alquran maanaam boo ko gisee muy dox jàppal ni alquran ji doxa nga ne le te alquran nag la cay nekk ci ay awamir nekk ci ay nawahi nekk ci ay mawaïs ay exhortation nekk ci ay tafasil muy ay détails yoo xam nañ ko détaillé lépp képp ku ko jëfee ku jëfee lañ eh, lañ ca digle moytu lañ tere kooku yaa war a nekk nag modèle lu ñëpp ci kaw suuf te yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la demee woon ak moom ci alxuraanul karim ginnaaw nag buñ ko royee ba pare roy gi mook topp gi ñooy ànd ndax yoon sa yàlla yàlla wax na téere bi nii wa in tutiuhu tahtadu ak lu mën di xew bu ngeen ko toppee daa ngeen tegu ci semi bu baax bi ci yoon bu baax bi bu ngeen ko toppul nag ma ci yéen dara wa in tutiuhu tahtadu ak lu mën di xew bu ngeen ko toppee da ngeen gindeeku ndax atiu llaha wa rasulah wa ulil amri minkum topp leen yàlla ak yonentam ba ak ñi nga xam ne ñoo méngoo seeni mbir ci yéen foofu nag dinaa fi taxaw tuuti ci taxawin bu bu bu euh, taxaw seetlu ndax fi mu ñu nekk ci Sénégal wala partout dans l'Afrique wala sax partout dans le monde bu ñu waxee ni ñu rey yonante bi sallallahu alayhi wasallam lim fi bàyyi woon lépp a ngi fi jikko yoon sallallahu alayhi wasallam bu ñu ne nee alxuraan mooy jikkoom alxuraan a ngi fi kon mboolem critère yi mu yoroon yépp mboolem jikko ju baax ji nekkoon ci moom yépp mi ngi fi bind nañ ko bàyyi fi alxuraan nettali na ko xadis nettali na ko mag ñi nettali nañ ko waaye wa ulil amri minkum ci laa war a taxaw tuuti mooy daf fi am ay mag yoo xam ne dañ fi nekkoon te seen lépp di yonante bi alayhi salaatu wasalaam léegi nag au lieu que ñuy ñuy def direct ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam day ëpp ci ñun yonante bi ëpp na ci ñun waaye dañuy jaar ku mel ci ku mel Cheikh Ahmad Bamba Xaadimi Rasul jaar ci Cheikh Sidi Hadj Maag radiyallahu taala anhu jaar ci Cheikh Bou Kounta Ndiassane jaar ci Alaaji Abdoulaye Niass Barham Niass al-Kawlaxi jaar ci maam Limaamullahi al-Mahdi jaar ci mboolem ñu baax ñooñu Cheikh Alxaaji Omar al Fouti Cheikhu Tidiane Chérif ñooñu nga xam ne amul amuñu woon benn occupation bu dul bëgg yonent bi ak tagg ko ñoom ñoo ñuy jigeel jëmmi yonent bi alayhi salaatu wa salaam imam busuri radiallahu anhu nee na inna fadla rasulallahi laysa lahu xaddun fa yurabu anhu naatiqum bi fam naa ngëneelu yonente bi sallallahu alayhi wasallam amul fuñ ko mën a natte wala ñu mën koo tudd ci làmmañ munta nekk li ko suñ borom defal ci tawfiq ak ci màggaay kenn mënu ko wax kon nag buñ ko bëggee roy ñun mën nañ wax ni amnañu amuñu amuñu amuñu euh pouvoiru man ko roy rek direct kon dañuy jaar ci mag ñi nga xamne ne yonent bi lañ defoon seen miroir def ko seen lumière diko nito ngir bëgg guñ ko bëgg ak yaakar guñ ko yaakar ak jël guñ jël seen lepp confier ko ko ci kanam suñu borom subhanahu wa taala ndax kep ku bëgg dara ci yalla subhanahu wa taala bo jaarul ci yonent bi do ko am ndax moy serviteur bi sédélé li nga xamni mom la suñu borom subhanahu wa taala di joxe ci bép anam nak motax suñu borom subhanahu wa taala dal ni ko waxal yow yonent bi ni khul in kuntum tuhibbun allah khul قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أنا أبو فكي بجنجين سن بروم سبحانه وتعالى topp leen ma man yonent yàlla Mamadu parce que bu ngeen ma toppee yàlla bëgg leen ba pare jéggal leen seeni bakkaar te bu la ko waxee rek nga war koo gëm ndax huwal gafuru rahim wallahu gafurun rahim léegi nag lii muskile bi mooy ñun bëgg nañ yàlla waaye dañuy doxee lu ñuy wax désobéissance bëgg yàlla ba pare lànk bañ ko topp ñàkk topp gi mooy ñàkk topp jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñàkk suivre ni mu doon jëflante ci ci dundam loolu dafay indi problème dëppoowul ak njàngaleem cheikhul xadim dëppalewul dëppoowul ak njàngaleem cheikh Sidi El Hadj Malick li mu jàngale mooy gëm yàlla ba mu jeex tàkk kii di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag ñu bañ koo yemale ak lenn ca mbindam yu kawe ya baana li kulli man lahu maaqulu anna wasilati huwa rasulu maanaam biir na képp ku am xel ci kaw suuf ni awma benn wasila bu jéggi sallallahu alayhi wa sallam ku toll ni cheikhul xadim ak suprématie pouvoir am ak ndimbal lim am ci suñu borom subhanahu wa taala dem ba jël yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ni mom rek moy jeewrinam amul benen jeewrin budul mom ku am xel wara ranger wu ci ginnaaw cheikhul khadim ku am xel motax seigne muntakhal bashir duñ dañ diko cité yàlla na yàlla fayal nuko daf fi wax wax daf fi waxon wax ju bari tawhid monde islamique bi yëpp man nañ ni ñi yàlla wul ci njàng mu soy sama classe gi ñëpp di ko contredire di ko diingat ndax dafa waxoon ni bu yowmal qiyaame bu suñ borom subhanahu wa taala teewee yonent bi teew Cheikh Ahmadul Xadim teew damay dem ci Serigne Touba wax ji nag ñu bëree bari contesté ko ci ci ci maanaam def ci ay critiques yu yu démolitif yoo xam ne da ngay da xam ni ñii euh, xëy na am nañ jàng waaye amuñu ndimbal xam nga jàng ak ndimbal dafa bokkut. Euh, li ma sama sëriñ bi wax sëriñ Mamour dama koy wax lu bari njàng ak ndimbal bokkul ndimbalu yàlla rek am solo ñu ngi koy jaare bu baax a baax moom. ndimbalu yàlla mooy ku yàlla dimbali ubbi la waaye bi mu waxee wax jooju moom Cheikh Mouhamadou Mountakha dañ ko dañ ko dañ ko contredire ñu baree baree bari ci ñi nga xam ne yàlla deful ci ñoom tawfiq jàpp ni xëy na li mu wax amul tawxiid waaye ci exemple bu gàtt. bu fekkee ni dañu dem ci benn entreprise ñu gis ni DG moom moom moom entreprise bi mais du fii nekk bàyyi fa secretaire général léegi man ma ñëw nekk emploi ñu jël ma may liggéey mais moment bi may ñëw ci entreprise bi bi may commencé liggéey DG sax mën na ko bañ a léegi man bu ma demee ñu jël ma ma commencé di liggéey def sama liggéey ni ñu ma ko waxee may joxe compte rendu mais compte rendu boobu kan kan laa ko war a jox. sama yoon néew ci DG parce que sax xawuma ko mën naa am sax gisanteeguñ DG la laa war a jox sama compte rendu léegi DG moo am affaire euh, secrétaire général moo am affaire ak DG mais sama yoon néew ci DG. léegi mbir mi hiérarchie la suñ mun taxaa li mu bëgg a wax mooy nit ku nekk dafa am ci kum jokk am wasilaam te yàlla waxtu boo waaxoo jëm ci moom direct boo moytuwul dina la duma nga del nga dellu ndax moom doxewut noonu dafa bëgg ko am kilifa li bëgg jàngee jàngale nag moom Cheikh Mountakha mooy nit day am kilifa nit day am kilifa mooy euh, fil bi yàlla teg seen de valeur bi nga topp ko ba egsi ci moom waaye kenn mënut a jug rek waaxu demal sa bopp sans wasila yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila léegi nag wasaa'il yooyu ngay jaar bañu ñu la ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi yeggale la ci yàlla waaye képp ku ci jóg ni da nga bëgg egg ci yàlla da ngay dem ci yàlla ber sa yoonu bopp jaaroo ci wasiila boo demee boo eggee boo fëgg buntu yàlla dina la duma nga dellu siwaat te boo dellu siwaatee sax lu ne xaj na ca mën nga mën nga faa sax far nag moo tax suñ Muntaqa waxam jooju bay tawxiid lool yal na yàlla fayal ñu ko li muy jàngale rek mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ëpp na ci ñu di ko ñu ñu ñu ñu bëgg koo adressé nu ne ak di ko wutee nu ne nañu jaar ci ñii nga xam ne ñoom ñoo yor flambeau yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen Cheikhul Khadim li mu wax ci ci ci ci ci wàllu googu kenn xamul nu mu toll bay wax ni malgré yonent bi amoon na ay shuara am na ay amoon na ay tàggkat ay ay ay maadixuuna yu nekkoon ci wetam waaye waaye waaye li ma ko wax ci tàgg amul kenn ku ko mos a wax ci kaw suuf kaabun wa xasaanun wal buusayru qad baracu wa kulluhum shiruhu nuurun wa asraaru lakin nag atallu maun wala kalwabli munsajiman wala tujaari nada bil maai amtaaru yooyu ku mel nii ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku mel nii ci waa këram nga xam ne amul benn njabootam bu génn yonent bi sallallahu alayhi wasallam demi wa ahli wa awlaadi fidaun lahu abdan xadiman lahu mudu kaana li sanada sama deret sama sama lépp jël naa ko jox yonent salaay sallam nga xam ne ba yonent salaay sallam doon dox ma gis ni dëkk war na koo jam ma tëdd jox jël sama lex bi euh, dëkk jam ca moo gën mu laal deru yonent bi salaay sallam kooku egg na ci extrémité yi gën a kawe ci bëgg yonent salaay sallam kooku nag munoon damay roy yonent bi danga daal ko fi romb وكذلك سكسك الحاد مالي وكذلك آه، أش الشيوخ الصوفية كيما خامين سنو دكي في سنو ريوم أني دكي فنان كون نيونيو دني مد باي خيل جامونو بو نك نك نا اي اكزامبل تي بوغ يونتبي صلى الله عليه وسلم كون دال لي مانا واخ موي ذلك الامام ذلك العلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ñun lott nañ ci ci ci euh, ci wax dara ci mom ndax limi yaram sax euh mënuñoo xam bu ñu gandee duñ mën a xam ana fu ñuy commencé ci moom ak fu ñuy euh, yam ci moom liñ koy wax rek mooy li nga xam ne moom la suñ borom subhanahu wa taala wax ci moom kenn du moom ci jikko ci taar ci màgg ci lépp yàlla yàlla nañ ko yàlla loo ndax bëgg ko rek moo am solo bëgg ko rek mooy mucc tey ak ëllëg ñii mu fi bàyyi nag ñuy euh, njabootam ñi nga xam ne ñoom ñooy ay xulafaa om um ci kaw suuf yàlla na yàlla bëgguloo ñu leen ci barke sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon waxtu wi xat na dañuy yemandi foofu rek ba beneen yoon ñu eggale incha allah in uridu illa al islaha mastataat wa ma tawfiqiya illa billah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu